dañu cee dolleen ni way jur bu ne ak fu mën nek nekk na nga xam ni rek nga ci dem ci réew warta tax nit ki soppi aw melokaan wala aw jëfin ñu bari buñ jógee fii ci réew mi bàyyi fi seen diine ak seen aada ak la gëm ci biir mi dem bitim réew xeetu kom koom wala xeetu système wala xeetu nekkin dana tax ñu soppi melokaan bay dund leneen lu wuteeg loola te loolu mën na indi ay jaye loolu yóbbee na waajur bi di sàkku doom ji sàkk goo xam ni mujj naa yéeme te doy